seen genn ngi topol len convoi bi ba arène nationale. comme ni ko baaxee def ak ñom rek sa su pendant avant et après yëpp dañ leen toppal làmb ji sa kess na départ na. départ Bamba gars yi ngi wis glace gi ci kaw auto yi. waaw glace moy ne lepp sétal sétal bu ci am bu dara am. waaye ay ah, Bamba ci Omar fu mu jëm ni lim si añ ci ceeb yàpp bi moom xam naa ne bu ki da nga topp mu fër ma nga nee de <laughs> nag du la ko nëbb waaye làmb ñëw ci mën <laughs> Dakar Actu du leen ko nëbb mais làmb ñëw ci mën yu nuyu nag moom moom moom soxna may madame Thiam di ko wax ni yàlla xale bu dund te am ndey ak baay. Sëriñ mhm, Saliou dégg naa am na tout tànk bu jigéen ñi war ko tuddal dimanche bi ma doon koo dàq ba dimanche ba ca topp. waaw lu duuf. Mhm, a mën a noppalu ko. dina mën a noppalu ko. waaw waaw dina ko mën a waaw di ko nuyu bu wér. Sëriñ Thiam kontaan naa démb woo na ma téléphone dama ko yëgalaat. ndeysaan def na lu rafet dama baax rek waaye yëgoon ko bu yàgg ma ñëkk ko ma yàq ñëw. waaye man man naa yow. Mhm. Sëriñ Saliou Thiam moom ñooñu bala si la du ñooñu bala ma lam déedéet waaw dañ doon def suñ suñ suñ sur mesure rek def mbaraakis yu xat. waaw mënut a ñàkk. mënut a yulli faaw ñu yulli waxande mi. mënut a faaw ñu yulli ko. jël la fa gën a riis yi def ko. waaw noo mën bis nag. noo mën bis xeeñu ba neex. et eh, Cheikh Omar Cheikh Omar moom la froissé rek la moom daa mel daa bokk fii parce que wax ko dara. moom day eh, lam waaw man nag faktor facteur de développement la. sering si ci am khalis. Ah, ci for si am si xaalis. <laughs> jaaykatu ndox bi am ci xaalis ko glace bi tay am na ci khalis. lan lay waxati ay ay Saya demoon saako saako glace. Bo demoon sa glace dum toll dafa cher. benn ba ñu ko jaayee 200. benn Salimata benn glace téeméer xaw ma 1000 francs ay campagne bi glace bamba. musiba la eh, yalla du nit. Salimata deg na glace ni ko jaay ben glace temer. temer. ak wut gu met sax. Bama ma bamba li. <laughs> glace 1000 francs la ko jëndee. ca dëkk Sadio Mané ba. ca koor ga koor benn glace 1000 francs ca koor ga. mu ne koor ga nangu na. ko xam ne koor nangu na Bamba. dinañ wax ni bis yu rëy yi. dinañ ko jox Dakar ak quand c'est important c'est nous. waaw waaw am maa ngi gis noonu. Mm, dama ne ku la benn mbuus. mi ngi mi ngi mi ngi yor mbuus mi Bamba. sarax la ko jox. a ah, sarax na ko meer ba. nee naa lamb ñi yelwaankat yi sax dañ ciy gis seen bopp. e lamb Bamba e lamb waaye nag. Sa Thiès xam nga ne day mam riir si wut si Eumeu Sène bu ko defee ñu loxo dal gémmiñ de. ay ay lamb mam Eumeu Sène nga mam wut si ko. ah am na am na arrêt droit bu garaaw waaw ko wax bu maam bu maamee bu maamee ñu lëng ko de. Eh, waaw bu maamee de ah. waaw ñun de ñun faral ñu kenn. waaw ñun. waaw ñun Dakar ak lañ faral. waaw Dakar ak lañ faral waaye bu maamee. waaw ah, bu maamee ñu ñu far ko de. ñu ma leen ko dem waaye Demba la nekk ak Serigne Sy ba. waaw ah, Demba jaay jaay yóbbuñu oto yóbbuñu dara. déedéet ma fi yaa xel li lañ yóbbu tet mom ya wi ligey ci gannaaw ci gannaaw bark Serigne Touba Demba Diagne bu léegi du la ki wax de Diagne ñaar way rek bam dama gis wa keur Eumeu sen rango rango vert jaune rouge ak blanc. waaw drapeau bi li sant mooy vert blanc. wa bam ba do sey ba gambi lañuy wacc xamna ni nak gambi lañuy wacc la ñuy waaj. eh eh Lamb ñoom Badiana. eh Lamb bam ñom sirikunda wa waa ñom dëkk ñom Pididance ko may bay tuddu tudd. Lamb waaye ah, kenn Amina sama xarit bu ceeb bu baax ceeb bu wang bu wang ceeb bu bëjëg ak suul. Eh, ndeysaan. ñoo yaa ngi gis noonu ñu ngay génn ndox yi. sax yaa ngay génn sax yaa ngay génn daal tey dañoo bëgg lépp sedd ba. waaw waaw gis boppam ci làmb. waaw waaw. usine ndox ba Ya yéen ñoo am ci ko di picc ya. mais nag làmb ji lu Bamba. Uh-huh. jàkkaarloog euh, sa sa Saalam. Sakande Sakande. waaw waaw borom gar gardanko la. gardanko eh eh làmb bamba <laughs> nee na ko su ma nee ne puusal da ngay puus. wala ngay ne ko tuus. suy puus ku duy puus moom xaw ma xam naa ne moom mooy borom gardanko la ak gartombe <laughs> eh làmb bamba ñoo leen nekkal fii si Mbaaw kër Amath sen Babacar ak Cheikh Omar ak Aline Diakko Pape Faye nekkal leen fële ca ca ca Sa Thiès départ na xanaa. Sa Thiès waaw daa mel ni départ na. Ah. ay mbokkam wër ko. borom këram bu kenn dootul toog. la ngi noonu kolo kolo kolo cuubu ko. rango du fi indi koko eh, laay laay bamba. koko laay laay bu ko fi indaatee ñu yóbbu ko tab ñu yóbbu ko faat. ñu yóbbu ko kii bi ah, ko du fi indi koko laay laay leneen gis noonu borom 19 bi Bamba. ab may orange def def ci numéro 19. def numéro 19. waaye asunam toog na ci suuf. toog na ci suuf di wér. ay ñaan ay waay ay lamb. toog ñaan. ay lamb Bamba ma ngay ñaan ma mag la ci amat seen. butéel yaa ngay génn. nii lay jot jot.

wa maa ngi seen fii waa Pikine ma nag waa waa Géejawaay waa Pikine ñu ngi def seen euh, vert rouge. waaw waaw la. ay Pikine. lépp Pikine ndam rek. Khady Diouf ñu ngi leen di nuyu. kooku. ba léegi yéen am image yi noonu à travers Dakaractu alors dem lu bëgg a tafate Omix dinañ tàgg sa femme bi sax na fa gi fi nga ko takk. waaye man ñu nga doon yàlla waaye ku lu bëgg a taf ku ne dana tàgg sa femme gi de balaa dagg ba ma yóbbu ma laa ba dama ko dul nangu dama ko dul nangu. Kouthia nga ko génn. Kouthia Kouthia ngi noonu Bamba daa mel ni ñu ngi waaj. waaw mooy seen bëreetul noonu lees pour amat seen génn Bamba bëreetul yéen ngi am coach noonu moo taxoon noonu ci bunt bi yéen koy am noonu yéen koy am noonu Bamba na ndigal la parce que dingin tëgg na ndigal waaw asango ma ngi noonu di takku di nga maa ngi seen ginaar gi gi bamba bamba dem bamba ëmm dah main ne fonk bis bi. waaw bis bi kawat ko war de fi mu toll nii. tax la mu ne dinaa wan daa mag ni ba léegi des na ay ngelaju te nag la koy prouvé saa kis télé yi wan ne ama seen xale laa ñoom ñaar ñëpp ku si nekk wax nga say wax daal di teg ñu xool nag après ni wane di mujjee ak ay gëtam waaw dina leer ci kanam tuuti may nii